len ak jàmm ci seen première histoire Yuusuf alayhi salaam ci dëkk bii di Faddal doon na fa dund benn mag mu baax moo xam ne Isxaaqa mooy baayam Isxaaqa Ibrahima Xalilullahi mooy baayam te moo di Yaaqub Yaaquba alayhi salaam di ab yonent sunu boroom xéewalewu ko woon lu toll ci fukki doom ak ñaar fukki doom ak ñaar yooyu amoon na jenn gone gu ndaw gu tudd yuusuf alayhi salaam yuusuf alayhi salaam kenn rek la bokkaloon ndey mu ngi tuddoon bunyamin bi nga xam ne yuusuf alayhi salaam xaw naa màgg tuuti di toll ci ay juróom at jàpp juróom mu daldi di gént gént gu yéeme te mooy dafa gis fukki biddiw ak benn ak jant bi ak weer bi ñu koy sujjootal te noonee la yeewoo daal di koy nettali ki nga xam ne moo di papaam te moo di Yanqub alayhi salaam Yanquba ne ko yow sama doom sa gént gii de firi ko yomb na lool ëllëg di nga nekk ku kawe ku am daraja ku am martaba fak sa kanamu borom te ëllëg yàlla dana la tànn nga bokk ci yonente yi sa gént gii nag bul ko nettali mukk mukk sa mbokk yi ndax kat dama ragal lool seytaane def am pexe ci seen diggante ki ne moo di yuusuf alayhi salaam waajuram bu jigéen mu ngi tuddoon raxil raxil moomee ñaari doom dong la am di ñaareelu soxna yonente yàlla yaqub alayhi salaam muy yuusuf ak bunyamin rakkam raxil mi ngi faatu jamono ji nga xam ne moom la bunyamin doon juddu mu nekkoon jamono ju metti joo xam ne mettoon na ci yaquba metti woon ci ki nga xam ne moo di yuusuf alayhi salaam jamono ji nga xam ne yanquba firil na yuusufa alayhi salaam gént gi ne ko bu ko nettali kenn kenn ci soxna yanquba yi dégg ko nettali ko ay mbokkam ca noonee doomi daal dajaloo commencé di waxtaan seen biir ki daal di ne yuusuf moom gis nañ ni sunu baay moom la gën a moom la gën a fonk ci ñun ñun daal yuusuf woon def dara lu dul rey ko rek dee ne du ngeen ko rey dañu koy génn dëkk bii bu soree suñu baay rek danañ am jàmm yaakaar naa ne loolu daal laa gis mu nekk solution kii daan ne déedéet bu ko kenn génne nañ ko rey bu ñu ko reyee rek ñu am jàmm ndax ma dama koo bañ bañ gu metti metti goo xam ne man ak yàlla rek koo xam keneen ci ñoom daan ne déedéet Yuusufa kenn du ko rey dañu koy génn yóbbu ba ci àll ba daal koy dugal ci ab teen su defee mu daal di noppal ñu daal noppalu kii daal di ne noonu lan la mën a nekkee ak suñu bàyyi ni mu fonkee Yuusuf ban confiance la jox ba tax mu bàyyi ñoog Youssouf ñu dem ak moom est-ce que duñ dem waxtaan ak moom ba xam xëy na mu daal ñu bàyyi ñu ànd ak Youssouf ca la mbokk yi dajaloo ñëw ci Yanquba alayhi salaam ngir waxtaan ak moom nekk ko yow sunu papa ani lan moo tax doo bàyyi Youssouf a ànd ak ñun dem ci àll ba ngir mën a foo ak sàmm ngir mën a miinaale liggéeyub àll ngir ëllëg mu xam li nekk ci àll ak njariñam wala looy tiit ci ñun danañ ko aar danañ ko sàmm. Yaquba daal dina leen Yuusuf kat seen rakk la te seen mbokk la te dama am ci moom ñeewantal lool dama ragal ngeen ànd ak moom dem ci àll ba ngeen sàngante ba tëll lekk ko te boobaa kat dana am lu leen metti te da ngeen tooñ seen borom tooñ ma man mii seen baay daal dina ko loolu nan la ma a nekkee ñun am mbooloo leen tëll du ñu xool mukk ba di ñu ñeme bàyyi rek Yuusuf ànd ak ñun dem ci àll ba ca noonee Yaquba daal dina leen nangu na bu subaa ngeen ànd ak Yuusuf dem ci àll ba sàmm góor ak jigéen bàyyiwuñu kenn bu kenn dem li fekk vidéo commentaire ba noppi jëm Almanahi TV